Euh, Vieux Diouf ñu jàll ci euh, l'observateur li mu xëyee tey jile l'observateur muy tiis wi am keroog ci guddi fële ca Tiwaawoon gis ngeen ko ci service néonatologie bu maternité euh, ba nekk foofu foofule ñu ne fukki liir fukki xale ak benn ñoom ñoo ñàkk seen bakken bokk na ci juróom-ñetti góor ak ñetti jigéen ci hôpital Maam Abdoul Aziz Sy baax ba ca Tiwaawan les premières lueurs de l'horreur noonu la ko journal bi waxee mu misaalee ko première audition yi police amal muy ñu déglu li mu wax ñoom ci rapport ministère de la santé ci bâtiment bi installation yeeg personnel soignant bi nga xam ne ñoo fa nekkoon am nekkuñu fa woon jamono bi jiyee jii di am témoignage yooyu yëpp ak euh, Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom dañoo tekki ndombol tànkam ginaaw jiyee jooju loolu lépp l'observateur dellu si waat na ci beneen mbir mu doy waar bu xew fële ci avenue Roume euh, démb euh, ki nga xamante ni moo di ab employé bu Société général du Sénégal SGN moom mi nga xam ne dafa tëb ci bi ñàkk bakkenam ñu ngi ci page 4 bu euh, journal bi leneen itam muy accord yi dox diggante gouvernement bu Sénégal ak jàngalekat yi 26 février 2022 la woon euh, waxtaan wi euh, ñu ne nag négociation enseignant gouvernement l'état de comptes maanaam taxaw xool yëf yi daal nu mu fa demee pèlerinage à la Mecque nouvelle donne qui risque de compliquer la Hajj 2022 boo mooyul mu am ay jafe-jafe ci Hajj bi yooyu yëpp mi ngi ci biir journal bi ñu jàll ci leneen muy record ak euh, li mu xëyee tey ci àjjuma ñu ngi coo doon waxtaanee sànq muy final bi euh, Sadio maane gis ngeen ko nekk euh, Liverpool Sadio Mané sur la finale Liverpool Real pour moi c'est un match comme les autres matchs la comme yeneen yi moom noonu la ko gisee mi ngi ci page 4 le Real bokk na ci équipe yi gën a mag ci monde bi ci àdduna bi mu ne nous avons beaucoup plus de qualité aujourd'hui uteeg at bile weesu ñu ñëw tam ci mercato bi ñu ne en raison de sa belle valeur marchande Bamba Dieng casse perspective pour l'OM point d'interrogation ab laaj la bu ñu samp Edouard Mendy gardien de but des Lions nee na moom dafa bëgg euh, que Sadio Mané gagné euh, Ligue des champions bi on l'espère euh, ñun tamit Euh, record ñëw na tam ci CAN 2023 bi liste contre Bénin Rwanda Aliou euh, mi ñu annulé conférence de presse bi ndax deuil national bi démb la tey ak ëllëg kon dafa nar a publier liste bi bu 11h jotee incha allah coupe du Sénégal quart de finale euh, AGL écarte Teungueth FC défi Casa en demi Linguère Lusitana pour l'autre ticket c'est à lire à la page 3 muy ñaari journaux yi groupe Futur Média di édité muy l'Observateur ak Record léegi léegi dañuy jàll ci météo express ñu ànd ci ak Oumy